atte bu jeng bi atte bu jeng bi li ko niru am na am na moom yàllaa xam kumpa moo xam dëgg nag dëgg dëgg moo tax da nga siy maandu waaye am na lu bari niru na atte bu jeng amma séddale bu jeng bi nag am na bu baax a baax amul laam-laam gis nga atte bu jeng ak séddale bu jeng du jur jàmm du suuxat jàmm même fu mu fekk jàmm yi tim mucc